ba léegi tuurum ndox mbedd dafay am amuñu assainissement amul éclairage lu bare bare bare bari daf fi wuute financement des femmes man bu ma toogee léeg-léeg gis ab DG wala ab ministre woote ca koñam xëcc directrice FONGIS wala mu xëcc kaneen mu ñëw foofa financé la ko ay femmes ay cinquante millions cent millions damay am lu ma métti loolu nag dama leen ciy woo ndax gox bu amul ko ko teewal ci fa ñuy décider du mën a yóotu indi fa ngir jariñu ci gox day am ñu ko teewal ca kaw ña teew fa ñuy séddalee nag ñooy mën a tibb indi ngir seeni waa gox jariñu ci